nuyu naa ñëpp ñeenti cas positif ak fukk yi wér moom la askanu sunu gaal am démb ci altine bi eh, waaye ndaw sam moo yow loolu nag di wane ak firndeel ni médecin yi nga xamante ne ñi ngi ci askanu sunu gaal alax ah, ñoom ña ngay def dëkk amal itam liggéey bu am solo nga ni waaw waaw maa la ko mbii mi de quatre-vingt-quinze la ñu testé laa la wax ci yooyu la quatre-vingt-quinze am na quatre dong rek képp kese nga ni waaw waaw yëpp positif quatre yooyu yee déglu ma wax la trois cas contacts la ñu am yoo xamante ne ce sont des contacts suivis e waaye ndaw samba no service waaw mi nga way yo yo la nga xamante ni moo ma yéem te jaaxal ma mooy li nga xamante ni booba ak ndeke ñu ngi koy gis di cas issu de la transmission communautaire eh, way bii kaab communautaire nekk li nga xamante ni moom moo jaaxal moom moo tiital askanu sunu gaal ndax kat ki nga xamante ni moo lay wàll kaab communautaire bii doo ko xam doo ko gis doo xam fu la ko wàlle laa la wax waa yow loolu moom lu ciy pexe ah pexe gi daal mooy riigu waa waaw toog seen kër comme man nga ne ma ñu de waaye li ci am ba daal mooy démb ci altine bi fukk yi wér nañ maa la ko wax fi mu fii may wax ak yow laa la wax deux cent vingt six cas la ñu am yoo xamante jot nañoo positif ci askanu sunu gaal laa ilaha illallah yooyu leen deux cent vingt six ci njàmbaar ak xarañteefuk ñi nga xamante ni ñoo di médecins yi li jënti nanoo suqi-suqi ba faj ci laa la wax wéeral ci lu toll ci quatre vingt douze cas allahu akbar laa ilaha illallah yéenay jàmbaar waaye nag liñ naan jaam ak pexeem yàlla ak dogalam ba tax na moom ci ab dogalam dogal na ba ñaar wàññeeku ci laa la wax am nañ ci ñaari dese am nañu itam benn évacué maanaam koo xamante ah, way dafa dellu fa mu jógee woon kon nag fi ñu toll nii am nañ cent trente yoo xamante ni ñu ngi leen di traité ah mbir maa ngay wàññeeku na gën a wàññeeku moo gën a ñu dem ubbil yéene kaay bi di leeral ma ngay fësal ak di xam le ni sax ni nit ñi nga xamante ni laa la wax dañoo amaat yeneen feebar laa la wax di ko sooxaale boo xam ñu leen di faj ak duñ leen faj ñoo ñee laa la wax ku ci am li nga xamante ni mooy coronavirus ay ay ay ku ko ci am laa la wax boo amul sens tuuti rek affaire bi yóbbu la laa bi si ne ñaar nga xamante ni jot nañ koo faatule sax ci askan sunu gaal di Pape Diouf ak restaurant trice bile am cinquante huit ans Pape Diouf nag waaw moom it mag la waaye li ci am ba des daal mooy jabet daal moo nekkoon ci ñoom daay lax la de musiba mbaama kumba waaw coronavirus prix jabet oho yàlla na yeex ah, tax na kon nga xamante ni ñoom ñooy dox di doxaale li nga xam ni moo di jabet ak yu ñooñu ñoo war a gën a moytu ñooñu ñoo war a gën a daw ñooñu ñoo war a gën a def seen bopp quarantaine laa wax confinement bii ñuy lakkale daw ca ba ngay ami tànk laa la wax waaye jii di wuye ca turu ASP laa la wax au oh, pro Aliou Thiam moom Aliou Thiam teel naa nangu teel a wax li nga xamante ni mooy li mu doon def foofee ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaas déglu mu wax la lam fa doon def ew moom Aliou Thiam ndekete yoo li ci ëpp laa la wax ñi nga xamante ni ñu ngi doon jógee Thiès di ci yeneen dëkk yi moom Aliou Thiam mii moo leen doon jaay autorisation ew waaye doo samba moom Aliou Thiam mii na dem sax ba wax ni jaay na lu toll ci trois cent autorisation foofee ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar nga ma maa ko mbii mi waaye kii xanaa autorisation de circuler moom moom ko moom waaw ASP bi le yéene kaay bii mi ak ñu xam le ni moom ASP bi ma nga doon liggéey foofee a lay jaay xam nga nu eh Samba saw tuur rek lay jël daal ko ca xusi xusi ko ca <laughs> ak yomb ma dikk wax la la nga xamante ni noonee lay jaayee la nga xam ne moo di autorisation ya eh waa ji jot naa duufal poosam de jot wax xam nga machine a ah, waaw waaw waaw defal ma calcul trois cent fois vingt cinq mille wala sax trente mille eh waay ndaw samba yi nag bamba ma ngi doon naat nag eh waay fex na nag parquet ci jëmmi boppam laa la wax maa ngi koy topp ëpp law escroquerie moom kay la mu defa raw escroquerie kay escroc koy toppee faux et usage de faux sur des actes administratifs ëpp law kii nag moo ñemete réyu fit dëgg dëgg dëgg dëgg de yemagu ci de déglu ma waaye te moom nag ñoo ngi koy toppee détournement de deniers publics waaw day bandi bandi lu rek bande ngok ñu dem. kon ne kooku waaye itam que ñëpp ni daal libre ba tey ji ubbil suñu yéenekaay yi ñu di xam le ni liibrul de liibrul de Hissène Habré déedéet Hissène Habré n'est pas libre la wax ay daal ñi nga xamante ni ñoo koy layal laa la wax ñoom ñoo ko ñaanal ñu yóbbu ko ci këram man ko faa tëj nag dul doolu ci diirub ñaari weer laa la wax eh waaye doo samba kookee nag moom la waral mooy confinement bi daal Hissène Habré xaw naa boppam ci confinement bi ndax la nga xamante ni moo di ñaari weer ci lu Hissène Habré war a tëdd ma ngi koy tëddee foofee ca këram e waaye ndaw samba ka yomb ñu dem tey ba tey ñu daal di ñëw wax ci li nga xamante ni ñoom moo ñeel wàllum yoon ba tey waaw waaw ak tribunal diglu leen gaa koo jëloon aj ko la wax de la suspension des audiences finalement levée na de yéene kaay baa ngi fësal ne ni suspension des audiences yooyu eh war naa dem bala 4 mai de eh waaye ndaw bi nag moo taxoon état d'urgence bi ay eh, nag luñ ko aji aji aji aji tax mu fees dell mel ni marché bu tas de déedéet du tax mu fees dell comme nam daan feetare coow léegi eh, maam maam déedéet du ca am laa la wax na nga xamante ni noonee lay demee laa la wax déglu ma wax la ko la xëy loolu ñoom ñoom donc buñ teewee ku nu muy neex nga xamante ni ñooy ñañoo teg loxo di les la wax ñoom képp ñoom ñett ñooñ dong rek képp kese kese kese képp ma la limal ñooy toog te saal ba laa la wax ñoom dong fay amul kañuy siise rek maa ko mbii ñu dem bala ngaa dem sax ma fësal la xamal la ni la foofee ca Jurbel laa wax am na benn audience bu ñu war a def ni ki mardi laa la wax eh waaye ndaw samba tey ji as boobam eh audience en flagrant délit la eh waaye samba daal xames nag eh waaye samba ñu dem ñu jëm mooy waaxu wuti foofee nga xamante ni moo di Touba waaye duñu dugg Touba dañuy yem fa nga xam ni moo di ngaabu ngaabu nag bu nu fa yemee laa la wax am na ñun fa jàpp de looy loxoy loolo ca couvre bi di leeral ma ngay fësal soxna Aïda Diallo da Thioune lanu taxaw laa la wax ew eh, bu fekk leen fi rek laa la wax ni leen nappus jàpp laa la wax ci couvre-feu bi ew eh, waaye ndaw samba mi ngoog ñu ne ba tey ba tey ñu daal di daw wax ak yéen ci affaire di ba Thiam Iba Thiam mi nga xamante ne laa la wax dafa nekkoon ci benn soirée privée mën nañ ko tudde soirée privée mën nañ ko tudde soirée rek boobee ñoom nga xamante ni laa la wax mën na ni ñoo di ay fii à papa ak fii à papa maanaam xale yi nga xamante ni seen baay daa yor ba géejal eh, samba en plein couvre wax plein couvre ñoom daal gone yi ca leen rocc koo dem ci kër di amal seenu feet laa la que yàgguñu ko def sax ah lu ma ci bu ma dugal de kër googee ñu nekkoon di def seen balaxal ma daal laa la wax ma ni liy fësal ak di xam le kuy naan di nëbb boo mandee feeñ ndaw soose dafa mujjoon di wàccu deret laa la wax eh waay samba waaye ci am ba des daal mooy ndaw soose da doon wàccu deret laa la wax di wàccu deret ju bare bare bare bari ba mu koy wàccu nag mu des kenn di nga xam ni moo waa sapeur pompier puis yoo xamante ne laa la leen laa la wax da ngaa bëgg a xam seen tur dégg lu ma wax la seen tur eh way naw samba daam amaar gorab Youssou Ndour ba ma ca biir nga ma benn xaritam boo xamante ni la wax ab tubaab la ma ngay ci turu Alia ma nga ca biir nga ne ma waaye itam kookee di wuyee ci turu Luti ba ma nga ca biir eh way naw samba jajaataal ma nga ca biir yow Fatim mii nga xamante ni ñoo ngi koy woowee poupée ma nga ca biir laa la wax am na ci sax koo xamante ni gona ya ñoo ngi koy woowee neex laa la wax moom ci jëmi boppam jàpp nañ ko moom itam eh way naw samba ñu dem moo gën a wóor yooyu ban waa Sakho daw dugg sunu gaal 24 ñoom ñuy fëtal ak di xam le ni waa ji di wuyee ci turam Mamadou Makhtar Cissé laa la wax eh waay moom Mamadou Makhtar Cissé moom eh ma ngay fës ak di xam le ni carburant bu ko eh a a kaay bi di sunu gaal 24 di fësal ak di xam le ni Pape Diouf ci jëmi boppam moom mi nga xamante ni coronavirus bee ko far laa la wax moom wàll na ko jama ja laa ilaha illallah allahu akbar ci jooji la jamono laa la wax ñuy wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ëpplew équipe nationale Sénégal génération 2002 ñëpp laa la wax ñoo ànd nekk ànd yi allahu akbar la ko waral sabab ko nag moo di ki nga xamante ni mi ngi wuyoo ci turu Alassane Ndour laa la wax bàyyam moo dëddu àdduna mani la mission bàyyub Alassane Ndour borom mar mi di kër wuy ji na boromam ubbil moo di seen yéene kaay yi da nga ko gis de laa ilaha illallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Thiès Info ngay jaale ñu dem ba tey ba tey ubbil yéene kaay bi fësal ak di xam le ni foofee nga xam ne moo di ca Kër Massar diggante 4 avril ak 6 avril laa la wax cinq personnes juróomi nit testé nañ ñu positif eh waaye ndaw Samba nga ni ma kon daal dafa mel ni fi mu toll nii affaire boobee ma ngay waaj a jóge foofee laa la wax affaire ba ma ngay waaj a jóge ca Touba di gën a rambax di gën a dem foofee nga xam ne moo ci Ndakaaru Njaajal Jóob eh waaye ban ca jógee da waaxu wuti sans limite sans limite ñëw moo xamante ne amu ca limite benn yoon màggal gi nga xamante ne mi ngi war a amee fële ca Daaru Muxti laa la wax 2020 bi yoon Sëriñ Moodu laa la wax waxtaan na ak taalibe yi am na lu mu wax ak taalibe yi déglu wax la ko moom ci jëmi boppam ma ngay fësal ak di xam le ni sagam fi mu ni tembe laa la wax réew mi ñëpp dañoo nekk ci wàllum confinement ndax bi li ni moo di feebar bu bon bële di wuyee ci turu coronavirus moo tax rassemblement yi dajaloo yi laa la wax loolu fi mu ci askan sunu gaal moom moom moom moom amu fi waaw waaw ana nag muy fësal le ni moo seen taalibe yi laa la wax ku ci nekk ci taalibe ni nar na fële ca Daaru Muxti na nga toog defee fa maag ay a dinañ ko mën a suivre a suivre direct ci mboole seen télé yi nga xamante ñu ci askan sunu gaal laa ak réseaux sociaux yi Chaabane de chaque année laa la wax la muy màggal lu leen loolu dajëb Serigne Touba Xaadim Rasul ak ki nga xamante ne moo di maam Thierno màggal ga nag mi ngi war a am nekk jeudi le 9 avril ndeysaan ca yàlla ñu dem lu pen nag leeral ñëw leeralaat ñu tuuti ci affaire ub Dieynaba Balde ak ki nga xamante ni moo di Diop Iseg Diop Iseg nag fi mu toll nii ay avocat lu bëgg du leen lu dul ñu daal di def benn test boo xamante ni ñoo ngi koy tuddee un test de paternité e eh, waanaw samba test doom jala la wax xool ndax Diop a ko juram dee ndax kat li ci am des mooy ñoom avocat li ñu bëgg mooy Diop Iseg moom eh ni pour let rocceeku génn jala nga xam ni mooy ca kaso ba ewa eh, c'est normal xawma sa normal am déedéet waaye dafa mel ni chloroquine di jarawul moom tawfeex la li ñuy moytuloo nag du leen lu dul toog suñu kër yi seet seet la say laat bu baaxee rek bësal clavier ñu dem jàggeen coof